dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal Amadou Ba bu Pastef yëkkati na ay kàddu daal di ko jëmale ci jàppante bu jaaroon ci diggante Macky sàll Marème Faye Sall ak benn sénégalaise bi uyoo ci turu sa Camara. Amadou Ba ne ci coow loolee état bu Sénégal bu bees bu fi nekk position bu neutre la daal di jël maanaam daa jëlal avocat kookee di Aïcha Camara di sénégalaise bi nga xam ne ne. moom la yoonu Maroc convoqué woon ci mbir moomee ne li ni mel lu muy tekki rek moom mooy que ne état bu Sénégal ci njiitalu kookee di président Bassirou Diomaye Faye amul benn privilège bu mu jagleel ancien président de la république bu fi nekkoon te muy président Macky Sall ne loolee leneen lu muy tekki rek moom mooy que ne amul benn protocole bu jaar ci diggante kookee di président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak Macky Sall ndax ne ancien président de la république bi fi nekkoon te muy Macky Sall bu demoon bay amal aku protocole dina am ay garantie yi nga xam ne ne bis bu fi génnee nga daal di koy xañ ay avantage am dina fësal garantie yooyee ba daal di lay jaxasee ak sénégalais yi daal di wane que ne danga koo wor ci protocole bi ngeen seqoon waaye ne boobu ba léegi na sénégalais yi daal di amal benn seetlu jëmale ko ci état bu bees bi par rapport ak position kooku président Macky Sall mais état bu bees bi amul benn privilège bu mu jël daal di koy jagleel ancien président de la république boobee di Macky Sall depuis ba mu bàyyeekoo ci bopp réew mi ba tey. kookee di Amadou Ba daal di woyal ne état bu bees bi non seulement képp ku fi nekkoon ci régime mu kookee di président Macky Sall te nga doon luubal alalu askan bi dina amal ay poursuite daal di koy teg sa ndodd waaye tamit ne état bu bees bi dina daal di topp képp ku nga xam ne ne. sa loxo dafa laale woon jëmale ci ñu boomoon ginnaaw boo fi kookee di président Macky Sall nekkee woon président de la république te ne bu fekkee ne kookee di président Macky Sall da cee bokkoon lu leer ba am moom mooy que ne yoonu réewu Sénégal dina ko daal di teg loxo.